asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi lay nuyu bu baax di leen nuyu ci turu mustafa ma sàmba mi nga xam ne mooy xalifa ma sàmba te jëwrinam teewal ko fi Serigne Mamour Mbacke di la gërëm bu baax a baax. ne di la gërëm bu baax a baax. di gën a feddali ak taalibeem. bu baax a baax di gën a feddali ak taalibeem bu baax a baax. Ah, di bége itam saw doxin. nee nag di bége saw doxin. ndax doxin wi lépp lislaam la. nee na doxin wi lépp lislaam la. doxin lépp taalibe gu ñu nang gu saadix la. nee doxin wi lépp taalibe saadix la. nee na loolu kon mi ngi ciy sant yàlla bu baax. nee na loolu kon Serigne Moustapha nee na mi ngi ciy sant yàlla bu baax. xelam dal na bu baax a baax. nee na it xelam dal na bu baax. xelu njaboot gi dal na bu baax a xelum njaboot gi it dal na bu baax. ndax boo boo toppee ci koo xam ne. nee boo toppee ci koo xam ni. mi ngi tege ci yoon wa mi ngi tege ca yoon wa. di ca teg nit ñi. di ca teg nit ñi. nga ànd ca biir mbooloo moomee. nga ànd ca biir mbooloo moomu. wóor na la ne. nee na la ni. bu àggee da nga àgg. da ngay Serigne Touba. ngay Serigne Touba. te mate ko sëkk. te mate ko sëkk. bi nga toogee. ne bi nga toogee. li nga njëkk a jël ci taxawaay. li nga njëkk a jël ci taxawaay. xamal nanu ne. xamal nanu ni. fa nga fii nga ko teg rek foofu fii nga ko teg rek la. ndax mooy mooy mooy mooy jàng. mooy jàng. xam xam. ak tarbiyewu ak tarbiyewu. foofu nga teg sa sa sa sa mission bii nga nekk. nee na loolu mooy mission bii nga nekk. def fi daara joo xam ne. nee def fi nag daara joo xam ni. nangami te nangami nangami nangami milliards. nee na nangami milliards la. yu bëree bari yu bëree bëree bari ñu def ko ci defin woo xam ne. ñu def ko ci defin woo xam ni. wu gaaw la. wu gaaw la. wu tege ciw yoon la wu tege ciw yoon la. wu ànd ak pasteef la wu ànd ak pasteef la. li nga ciy def def nga ko lépp ba mat. ne li nga ci def def nga ko lépp ba mu mat. taalibe yi nga xam ne ne taalibe yi nga xam ni ñoo coobarewu ñoo coobarewu liggéey fa liggéey fa ñoom itam ñoom itam lañ ci man lépp def lañ man lépp def nañ Mbay Sarr mais mooy seen njiit nee na Mbay Sarr male mooy seen njiit noonu la ame taxawaay fii itam nag nee nag la amee taxawaay fii loxo ma ngi ci lépp ne loxo ma ngi ci lépp ne beneen ba ca des ne beneen nag ba ca des ñi nga xam ne ñi nga xam ni ñoo coobarewu liggéey fa ñee ñoo coobarewu liggéey fa liggéey moom it sori na lool nee liggéey ba it sori na lool kenn ku ne kenn ku nekk da ngay jàpp ne da jàpp ni liggéey bi liggéey bi nangami at la bi nanga liggéey bi nangami at la waaye nag fekk waaye fekk pasteef yaa toll noonu pasteef ya moo toll noonu waaye waaye yàggewul waaye yàggewul noonu sëñ bi sa sa boobu. ne sa mebet boobu. ak sa naal yooyu. ak sa naal yooyu. yal na ko sunu borom àggale. yal na ko sunu borom àggale. ci daraje xaadimu rasul ci daraje xaadimu rasul. ba nga ubbi leen yoon yëpp ba nga ubbi leen yoon bi yëpp. ñë promotion bi fi njëkk a génne. promotion bi fi njëkk a génne. yal na ñu génne ci sa kanam na yal na ñu génne ci sa kanam. yàlla mën na ko nee na yàlla mën na ko. ak ak yeneen i promotion ak yeneen i yoon wi nag. nee na yoon wi nag. nii rek la demee. nee na nii rek la demee de. yoonu ndigal rek la yoonu de sëriñ samba mii nga xam ne moom nga seet si fii tey. nee sëriñ samba mii nga seet si tey fii. mook sëriñ Touba. nee mook sëriñ Touba. noonu rek la ko defoon nee noon rek la ko defoon. da koo defoon muy wéy juróom da koo defoon muy wéy juram defoon ko muy magam. defoon ko muy magam. def ko muy sëriñam. def koy muy sëriñam. lépp lu ci yooyu. nee na cër yooyu. li muy li muy neex neex. nee li muy neex neex. taalibe gi mu am moo ko gën a neex. gën a neex. waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam liggéeyloo na ko ci wàllu taxaw nee na liggéeyloo na ko ci wàllu taxawu muy laxasaayu muy laxasaayu di ànd di ànd ak ñëpp di ànd ak ñëpp di liggéey di liggéey ay kër ay kër yoo xam ne booba kër gii ñëwagul yooyu boo xam ne kër gi ñëwagul cëcce yéen cëcce yéen ak ci yeneen dëkk yëpp ci dëkk yëpp sëriñ Massamba liggéey na fi bu rëy Massamba liggéey na fi liggéey bu rëy ba ci njaareem ba ci njaareem ndekete booba ndekete booba yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw ñu di ko liggéeyloo liggéey boo xam ne di ko boo xam ni moo moo boo moog yooye ñoo yem képp ne moog yooye ñoo yem képp ci pas-pas ci pas-pas ci ci ci bëgg lu baax ci bëgg lu baax bëgguk taalibe ci bëgguk taalibe noonu la sëñ Massamba doon doxee ne noonu la sëriñ Massamba doon doxee mu liggéeyloo waat ko wàll goo xam ne ne nag mu liggéeyloo ko wàll woo xamante ni moom itam wàllu toog la ne loolu wàllu toog la muy muy xasi xasida yi muy xasida yi lu bari lu génn ci moom. nee lu bari lu génn ci moom. teg tege ci loxoom. tege ci loxoom. mu ne ko ma samba mu ne ko ma sàmba. lu war a génn. lu war a génn. génne ko génne ko. lu war ta génn. lu war ta génn. bu ko génne bu ko génne. kóolute googu la amoon ci moom nee kóolute googu la Serigne Touba amoon ci Serigne Massamba. bëggutoon nag kenn ku dul Serigne Touba. nee Serigne Massamba bëggul woon kenn mbaa lenn ku dul Serigne Touba. soxlawul kër. nee soxlawul kër. soxlawut woon dëkk. woon dëkk. soxlawul dara soxlawul dara. ba Serigne bi. ba Serigne bi. yebal ko moom ak sëriñ du Moustapha ak sëñ Fallou. yebal ko moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh du saadal ne leen dem leen Touba nekk ma fa. ne leen dem leen Touba nekk ma fa. bu ngeen demee. bu ngeen demee. kenn ku ne. kenn ku ne. na wut kër. na wut kër. waaye na wuti fu muy liggéeyee. na wuti fu muy liggéeyee. bi sëñ Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bass mu ñëw wax nu ko. ne bi Cheikh Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bassirou mii mu ñëw wax nu ko. danoo ànd ba ci ñoom. ne danoo àndaat ba ci ñoom. ba ci sëriñ Moustapha ba ci sëriñ Moustapha mu yebal nu ci sëñ Maamoor nee mu yebal nu ci sëñ Maamoor mii ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp nee ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp waxtaane fa nuñ koy liggéey nee waxtaane fa nag nuñ koy liggéeyee ak pas-pas buñ ciy am ak pas-pas buñ ciy am ak yéene juñ ciy am ak yéene juñ ciy am ba bañ juboo ci nee bañ juboo ci Cheikh Bass doog a dem ne Cheikh Serigne Bassirou mii door a dem andil nu plan bi andil nu plan bi plan ñoo ko defar ne plan bi ñoo ko defar andil nu ko andil nu ko ñu ñu respecté ko nañ ko bindee woon ko nañ ko bindee woon dara manqué wu dara manqué wu ci suuf gi ci suuf gi li ci dem li ci dem ak li dem ci kaw gi ak li dem ci kaw gi soreewuñu soreewuñu tableau baa ngi ci biir ci bi tableau baa ngi ci buntu bi ku ko gis ku ko gis danga nga xam li ci dem ci feer xam ne li ci dem ci xeer ak li ci def ci feer ak li ci dem ci feer ak li ci ay feer feer yi gën a kawe yi gën a mag gën a kawe te gën a mag am na ci nee am na ci liggéey bi nag ne liggéey bi nag noonu lañ ko toppee ne loolu lañ ko toppee ñu doon ci jawrin ñu doon ci jawriñ Serigne Fallou doon trésorier bi ko yor ne Serigne Fallou doon trésorier bi ko yor moom it bëgg nañ ñu ñaanal ko nee na bëgg na ñu ñaanal ko ndax ndax ndax lépp lu ñuy dénkaane moom lañ koy dénk ñuy dénkaane rek moom lañ koy dénk ci wér gi ci wér gi ak maandu gi ak maandu gi mate na ko sëkk ne mate na ko sëkk sët yi yëpp ne sët yi yëpp defee liggéey boobu biñ defee liggéey boobu bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ni bii ñu koy ubbi lañ fi doog a dox ubbi lañ fi doog a ndax am ndax am kóolute. ndax am kóolute ak confiance. ak confiance ci ñi dénk liggéey ci ñi ñu dénk liggéey bi. tey nag ñëpp ñëw nañu. tey nag Mbàkke ñëpp ñëw nañu. waaye nag seen loxo. waaye seen loxo. mësu cee jóg nee mësu cee jog de. ndax ni ñu doon liggéeyee. ndax ni ñu doon liggéeyee. at mu ne. at mu ne. danañu laaj. kër yi dana danañu laaj kër yi. li jëm ci liggéey bi ci liggéey bi. ñu joxe ko ñu joxe ko. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ba ci at mu mujj mii ba ci at mu mujj mii. am nañ juróom benn fukki million. am nañ juróom benn fukki million. mottalee ko liggéey bii mottalee ko liggéey bii. tegaat ca fanweeri million tegaat ca fanweeri million. Euh, muy muy muy muy muy muy photo yii fi ne. muy muy muy nag salon yii fi ne. kon sëriñ bi. ne kon daal sëriñ bi. nga ñaanal sët yi. nee nga ñaanal nag sët yi. ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. ne ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. te bañ caa soppi dara te bañ caa soppi dara. ci bëgg Serigne Touba ci bëgg Serigne Touba. ak gëm ko ak gëm ko. bëgg Seex ma Samba bëgg ma Samba. ak gëm ko ak gëm ko. ñaanal nu ne ñaanal nu ba sax ci ba suñu xol sax ci loolu. dara bañ cee jóge ben yoon bañ cee jóge benn yoon. nu ñaanal la. ne ñun tamit ñu ñaanal la. sa fan lool ne sa foon gudd lool. li nga yéene lépp nga def ko li nga yéene lépp nga def ko. ba mu mat sëkk ba mu mat sek dara bañ caa manqué dara bañ caa manqué. xam nañu sa pasteef mais xam nañu nag sa pasteef. ak sa yéene ak sa yéene. wóor nañu ne. mais na nañu ni. ko sunu borom dogalee su ko sunu borom dogalee. kenn ku ne da am da nga ne kenn ku nekk ci ñun ñii di nga am loo bëgg ndax ndax ndax ku ne yéene nga ko la mu am ndax ku ne yéene nga ko la mu am taalibe bu ne yéene nga ko mu am lu dul jeex ne taalibe bu nekk yéene nga ko mu am lu dul jeex kon ñaanal leen ko rek ne kon ñaanal leen ko rek ba loo song ba loo song rek ñu mën koo daaneel ñu ngi lay sant bu baax nee daal ñu ngi lay sant bu baax a baax Euh, màggal gii ñëw it nee na màggal gii ñëw it ci yàlla defal ndam nee na yal la ci yàlla defal ndam ndam lu rëy ndam lu rëy loo xam ne loo xam ni dana ci jóge dana ci jóge xam kan ay sëñ xam kan mooy sëñ Touba ndox te wóor nañu ne te wóor nañu ni dana am waxa sëriñ bi mu ne mi ngi nuyu sëriñ Mamor mu jottali ko nuyoom boobu sëriñ Moustapha ak bokki taalibe yi fi teew yëpp ak bokk yi fi teew yëpp te ñu àndoon ak moom ñu bokkoon liggéey ak bokki taalibe yi mu ne daanaka kàddu yi sëñ Seex yi xawee su jéem mën a jéem a dolli dara ñépp dégg nañ ko te leer na nañ mat na sëkk nee na bi dara des ji nee dégg nañ ko ci nopp yi dégg nañ ko ci xol yi nee na kon mënuñu cee dolli dara xanaa rekk kay jataay bii ak bis bii am na ci mbégte mu rëy ndax yéene ji mu yéene njabootum Samba Samba gii ko liggéey nee na ni mu ci amee mu rëy fekk na yéene ju rëy moo ko leen jëf ji lool nee na sedd ji guy yaakaaram dolli ko ci xelam gën a dal nee na sëñ Masamba moom nee na ñu tudd ko rek mu dégg ko ci noppam nee na doy na ko nee na loolu taxoon na ci lu jiitu jataay bii mu defaloon ko bisu boppam lépp doon ko dugal ci liggéeyam Serigne Touba nee na loolu jiitu woon na te noonu boobu kilifaam a ngi fi waaye mënatu ko woon a muñ nee na mëntoon na ñàkk feeñal nag digganteem ak Cheikh Massamba loolu moo tax mu defaloon ko bis boobu bu mu ko defaloon. nee na kon waxi sëñ seex ji. kaddu yi sëñ seex yi. jërul dolli dara. xanaa dolli cant ak ngërëm rek. di seereel sëriñ Moustapha mi jiite kër gi ak doom yi ak rakk yi ko àndal ak bokki taalibe yi nee na mi ngi leen di seereel ne mi ngi leen di sant di leen gërëm di ko seeral rek Serigne Touba mi borom di leen seeral ne itam ñëpp ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di seereel yeesal gu muy yeesal jaayanteem ak Serigne Touba di leen gën a seereel fas yéene fàttali ak laxasaayam gën ko ànd ak yéen. sax dàkk ci jaamu yàlla. sax dàkk ci jaamu yàlla. ak liggéeyal sëriñ bi. nee na moom nag ni mu koy waxee. dañuy sax dàkk ci jaamu yàlla. liggéeyale ko sëriñ bi. nee na moom foofu rek la nekk. nee na mi ngi leen koy seeral yéen ñëpp. jërë ngeen jëf. nee na cant daa mënta sant waaye kon dana ko weesu. nee na sedd na guy. ba Bassirou nee na ma Massamba na ma ko waxe woon keroog. li mu doon ci sëriñ bi dafa bari. nee na li mu doon ci sëriñ bi dafa bari. nee day rakkam. di doomam. di ab taalibeem. nee jël léppam jeexal ko ci sëriñ bi. nee na seeyal léppam ci sëriñ bi. déedéet Mamor Mamor. nee na loolu moom la sëriñ Cheikh mi wax. saal bi la ñuy maye. nee dañuy defar dañuy julli sëñ bi day julli. kon borom yi yëpp dañuy jàll ci saal ba ca des. ak fas yéex am ci Cheikh Massamba. dañuy dem ñii bu sëñ Bass nappe bu sëñ Bass nappe. caméraman yi ñëpp ñu dem ci beneen saal ñu laal fii sëñ bi day julli. nee na santal boppam Serigne Moustapha ak Serigne Mamor ak seeni rak ak seeni doom yëpp ne kon loolu nee li Serigne bi wax yóbbaale na lépp nee na ndigal daal des koo mënta ñàkk a jëfe waaye nu jeexale foofu kaddu gi nee di ñaanal nag Serigne bi mu yàgg fi lool nee na ñaanal Serigne Moustapha itam ne mu yàgg fi lool ne ñu ànd ñu yàgg ànd liggéeyal Sëñ Touba te daje ceeg tawfeex ci Sëñ Touba wasalaam